te ñu koy teg ci yoon Amadou Ba loolu moo ko yëkkati pour yëkkati dëgg bi teg ko ci yoon xam nga nit moom nee nañu yàlla dëgg la bëgg te dëgg mooy lii mujj Amadou Ba dëgg képp la jël teg dëgg képp dëgg boobu mu teg moom la bëgg képp képp ñu àddu ci moom laajul leneen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 aali ci boppam léegi gëmatu leen ñun ñëpp ñoo déggandoo aali génn démb ne leen bàyyi leen kii ngeen delloo ko ay kayitam aali sax gëmatu leen léegi ñoom ci seen biir sax ñu ngi jéem a daw kenn ku nekk ci ñoom mi ngi jéem a daw wuti boppam sabar bu tas ndaw gouvernement bu jaxle jaaxle Macky Sall la mu doon tere démb sax ma ngi koy def léegi mooy jël turu tali yi changé ko mais mom nak li ci soof rek moy Ousmane Sonko gis ngeen ba mu demee taligien chori ba ñu changé tuddi pour tout tuddeewu ko bopam dafa ko avenue Ousmane Sonko Mom daf ko tuddé nit ñi nga xam ne yello yelloo mom Macky Sall mom tali yi dañ koy dindi di ko ko mom. tuddé forcé xam nga Ousmane Sonko limuy wër ci dëkk bi ñu am ay tur Ousmane Sonko partout Macky Sall ñaar do ngeen ko xamé man de ben Macky la xam ben la xam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 ndax whatsapp ndax youtube ndax tiktok sénégalais bi yeewoo fongole bi laa la wax waxuma bi yeewoo dakar touba tiwaawan Thiès non waxuma ñooñu sénégalais bi yeewoo fongole sax xam na li xew senegal donc pourquoi jaay doole bi